et le fait que man dama doon bind tout le temps ci Idrissa Seck et que reportage bu am ci Idrissa Seck man la ñuy wax ma dem. finalement ñu ne kii daal ci ci Idrissa Seck la far. Mhm. ñu may woowee Mara am na sax ce matin ma demee maison de la presse j'ai croisé Cheikh jàll qui était à l'époque <coughs> photographe du populaire moom ba léegi Mara la may woowee. te Mara boobu dara teguma ko dul li ma daan bind lu bari ci Idrissa Seck xam nga tax à l'époque. Mhm. parce que Idrissa Seck moment boobu dafa nekkoon li presse biy tuddee un bon c'est-à-dire kuy jaay. nit la woon koo xam ne mi ngi doog a génn ci gouvernement wu Abdoulaye Wade su waxee wax loo xam ne. soo ko defee à la une do journal force dañ koy jaay. Mhm. force day day jar. Mhm. maa ngi fàttaliku d'ailleurs Idrissa Seck bi mu nekkee prison mas na wax benn phrase bu am solo. affaire xaw ma bu am solo xaw ma en tout cas benn phrase bu mu sànni rek. Mhm. da koo bindoon d'ailleurs sànni ko Macky Sall boobu Macky Sall dafa dem nekk premier ministre du Sénégal. Macky Sall dem méridien président. bi ñu tuddee léegi naan lañ tudd sax KINFAT KINFAT ñu dajale fa tout le corps diplomatique du Sénégal mm. Ablaye Wade déclassifier le rapport de la Cour des comptes bi nga xam le rapport de l' inspection générale d' état bi nga xam ne moo épinglé woon Idrissa Seck mm. dans l' affaire des chantiers de Thiès mm-hmm. ñu jox ko Macky Sall mu dem euh, méridien président après midi la woon benn ngoon mm-hmm. mu ñëw <coughs> ambassadeur yépp toog ci salle bu mag ba mu liir rapport ba mu jeex li fa Idriss Seck def yëpp liñ ko jéem yëpp fa mu dugal xaalis ba dañ koo jox mu jënd lii mu def lii def lii def lii présenté ko comme le plus grand voleur du siècle bi ma ñëwee man jour man maa bind le texte j' j'avais fait un texte pratiquement sur deux pages sur ce boo demee sesti seen archive di nga ko gis mmh. sur tout ce que Macky Sall a dit sur Idriss Seck pour di ko charger sur les chantiers de Thiès bi ñu bindee texte bi ba le lendemain dama bindaat beneen texte xam nga texte bi c'était quoi. Mhm. Idrissa Seck bi mu déggee wax ji boobu mi ngi prison de. Mhm. dafa am benn phrase bu mu lâché woon daf ne woon jëmale ko ci Macky Sall daf ne woon Allah n'aime pas les traîtres c'était ça la phrase Allah n'aime pas les traîtres la phrase de Idriss Seck boobu yaa xam mbay mii di directeur général Soleil moo doon directeur de publication populaire yaa xam def ko à la une du journal Allah n'aime les traîtres et ce traitement de l'information là boo ko daan bind da ngay leer ne boo xëyee suba journal day jar parce que à l'époque Idrissa Seck c'était un bon produit c'était mmh. bon client pour la presse mmh. je me rappelle moment yi populaire daan tiré jusqu'à ay cinquante sept mille mm-hmm. ñu koy jaay ci mbedd bi donc moment boobu Idrissa Seck nekkoon Ousmane moo ca nekk léegi mm-hmm. mooy c'est un bon client nit la koo xam ne soo ko invité wala euh, teg ko sa télé wala nga wala nga jël ko entretien wala leneen. par force nit ñi dañ lay déglu. nit ñi dañ koy seetaan ci jargon bi ñu nekk léegi sax tu as forcément des vues. oui et loolu. <laughs> exactement bu doon époque boobu ay vues la ñuy wax. mais <laughs> époque bi époque ay vues lañ toll. Mm. la preuve soo xoolee euh, France 24 pour dire sa question. Mm-hmm. lan moo tax les médias étrangers. s'intéressent s'intéressent à Ousmane Sonko boobu mooy le premier aspect te li li ngay prouver mooy. xoolal France 24 bis bi ñu defee l' ak euh, Ousmane Sonko qu' est ce qu' ils dañ naan la les premières euh, bi ñu ko defee entretien bi teg ko seen site bi. 24 heures après ça a atteint 1 million de vues. 1 mmh. million de vues 24 de vues. mais loolu ban média moo ci craché ban média nga ngay wax ne jëlal un homme comme ça mu ne du ma ko jël. fii ci Sénégal gii. ku mu ko fi ku ku fi Ousmane Sonko d'accordoon def ak yow entretien nga jël. parce que médias yi ku leen seetaan la ñuy wut. xanaa mm-hmm. RTS moo ko jël pour pour d'autres raisons. Mm-hmm. mais gisuma fi beneen bu koy boobu mooy benn aspect ci li nga xam ne man yaakaar naa ne moo tax médias yi intéressé wu ci moom c'est que c'est un politique boo xam ne. en Afrique et dans la diaspora les gens dañ koy déglu di ko seetaan su ko France 24 jëlee xam nañ ne dañ Afrique yëpp dinañ ko seetaan. Mm-hmm. xam nañ ne les dirigeants du monde même dañ koy seetaan beneen bi mooy ça c'est le premier aspect. Mmh. le deuxième aspect mooy mais pourquoi finalement les médias la bëgg di ko interviewer à ce moment précis. Mhm. xam nga dafa toll un moment boo xam ne un Ousmane Sonko dafa nekkoon un homme boo xam ne il n'était pas fréquentable. Mhm. pour certains dirigeants du monde. wala pour certains. Presse. médias du monde. Mmh. pour certaines presses. Mhm. mais dama j'ai l'impression que ni il est devenu fréquentat pour ñoo xam nga lu tax parce que tubaab yi français yi notamment dafa am loo xam ne seen i yeewute la mooy ils disent très souvent que ni ñoom du ñoom ñooy tànn les chefs d'État en Afrique mais ils ne viendront pas mener le combat des Africains à la plat des Africains. gis nga tey su Sénégalais yi toogoon croiser seeni i bras ne Macky Sall bu ko neexee def troisième mandat du France mooy ñëw naan doo ko def. ku weddi nga laaj Côte d'Ivoire quand Alassane Ouattara a voulu faire un troisième mandat les Ivoiriens toog seetaan. français yi dañoo croiser les bras ils l'ont mhm. même félicité pour ça. Mhm. mais Sénégal la mobilisation qu'il y contre le troisième mandat moo tax français yi wax seen waa ji ne ko fi nga jëm boo fa boo fa àggee. risque la pour le Sénégal. Mm-hmm. d'après li ma liir daan tout dans beaucoup de médias. beneen bi mooy ils lactual l'actualité au Sénégal et ils savent tey boo jëlee les leaders politiques Sénégal ñoom ñëpp nga teg leen teg leen ne Sénégalais yi tànn leen ki ci am mille chances pour ñu tànn ko mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. et loolu tubaab bi dañ koo xam. Aïcha il faut ngay comprendre lan mooy France 24 pour mën a xam lan moo tax bu intéressé woo ci nit mu jar a taxaw France 24 c'est pas Walfadjri. c'est c'est pas TF1 en France non plus c'est pas je sais pas moi les les chaînes privées France 24 média d'état la mi ngi bokk ci génn groupe gu ñuy tuddee groupe France Média Monde groupe France Média Monde gis nga groupe boobu xam nga nu mu tuddoon avant mhm. audiovisuel extérieur de la France audiovisuel extérieur de la France après la ñu changé tur bi tudde ko groupe France Média Monde France Média Monde mhm. ci ngay fekk RFI ci la bokk. Mhm. France 24 ci la bokk. am na benn rajo boo xam ne arabe lay wax ci la bokk ñu tuddee ko rajo Monte Carlo Doualiya gis nga ñooñu lu ñu wax France ko wax lu ñu wax France ko wax te boo gisee. soo gisee ñuy wan ginnaaw. ndànk-ndànk le pou un pouvoir en Afrique. Mhm. commencé wul inquiété wu ci pouvoir boobu. Mhm. parce que quelque part ils ont compris que ni pouvoir boobu li xale yi wax yoratu ko. Mhm. pouvoir Macky Sall bii. mais est-ce que kon Moustapha bu ma ko mënee euh, modifier wala pas modifier sax. mais peut-être employé synonyme mooy. est-ce que la donne ne semble pas changer. changé na bu yàgg loolu laa la bëgg a wax te nga waxal ko sa bopp. les tubaab français yi en particulier dañoo comprendre que ne seen nen yëpp mënuñu koo jël def ko ci saagu bennoo saagu benno bi buñ ciy def seen nen yëpp di ko ñàkk loolu moo tax ma ne la dañu xam ne le pouvoir bi fi nekk Macky Sall pour le moment yoratu ko pour wax ci langage bi nga xam ne moom la les jeunes sénégalais di wax mhm. yoratu ko comme yoratu ko dañuy seeti keneen ko parce que tamit euh, tubaab du agir lu dul ay intérêt. ma ne la te xam ne nekk ma ne la Aïcha Sénégal France soo gisee rajo Monte Carlo Doualiya ca di wax arabe ci réew arabe ya hmm. te France moom ko parce que ça fait du groupe France Média Monde ça hmm. mu ngi tuddoon audiovisuel extérieur de la France fi France 24 soo leen gisee ñuy intéressé wu ci lenn hmm. mbir moomu Aïcha dee ci bàyyi xel dafa am sama benn xarit mu nga ca France xam naa ne mooy seetaan saay saay la bëgguma tudd tur wi daf ne Moustapha ma ne ko ah, mu ne ma gis nga man kañ laa comprendre que ne Ablaye Wade day daal ma ne ko ah, mu ne ma Laurent Fabius ba mu nekkee ministre affaires étrangères su ma juumul à l'époque Fabius mooy moo nekk affaires étrangères je en tout cas mi mu ne ma dafa am des activités sénégalais mm-hmm. yoo xam ne ñoom la croisé Quai euh, d'Orsay xam ma Quai d'Orsay mooy fan. Quai uh-huh. d'Orsay mooy fa ministère des affaires étrangères nekk ca France mi ngi uh-huh. mel ne ñu ne place Washington. Uh-huh. nga ne fa la Antoine Diome nekk. mooy fa la ministère de l'intérieur nekk. mu ne ba ma leen fa gisee ñooy activiste laa xam ne tubaab bi pare nañ ci Ablaye Wade boo gisee France 24. jékki-jékki intéressé wu trop ci mbiru Ousmane Sonko la mu àndal c'est parce que ñoom. ils ont senti quelque chose boo xam ne beaucoup de sénégalais sentir dañ ko depuis très longtemps mooy waa jii nekk ci kër góor gi fii xale yi naan borom barrière bi ci kër góor gi. Mhm. suñ ko bàyyi mbokk ci élection yi ñii duñu yenn loolu mooy li am. Mhm. ku ko wax nag ñu ne da far. Mhm. ndokk mais loolu mooy li am te loolu du du du sama ay wax. seetlu la ak natt. parce que réew mi il faut ngay seetlu di natt. soo demee ba ab la makki Sall. Mhm. nga xam ne d'ailleurs ñun la presse sénégalaise lan moo ñu daan gën a metti mooy dañ daan wax ne wéy lan moo tax Macky Sall su waree wax ak réew mi di dem France 24 wala mu dem eh, eh, je sais pas LCI nga xam wala mu dem ci média étranger yi di fa waxee lu tax du ko wax suñu média yi du yàgg nga dégg Fra euh, journaliste Sénégal di ko kaas non mhm. su demee ba même pouvoir Macky Sall boobu. di retourné wu contre France 24 naan ni mu defee ligue ni mu defee laa ni mu defee ni mu defee laa. mais soo yaakaaree dara xewul mooy sa dégg-dégg dafa gàtt. am na <laughs> am na lu xew. am na lu parce que ñëpp mu moom foofu la doon tourné ah lu mu doon Moussa wax. abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci réew.